asalaamaaleykum sama mbokk yi ngeen baal ma olof bi nag mais tey kay foog ma ma ma ma jéngu def affaire bi nag ma dóor ko mu daal alors ma laa Yaya Mané yaakaar naa yu bari xam nañ euh, damay def euh, euh, médiation ak ISPRA NOA di Mantova alors ñoom ñoo ma jox kii bi pour ma ma mun a waxtaan ak yéen pour expliquer leen. Euh, loi bu bees bi mu dugg ci ci feebar bi mu ñëw ni euh, feebar bi mu nekk ci dëkk bi pour expliquer leen lan moo ser euh, règle yoo xamante ne war nañu ko respecter ñun yëpp nga nekk nit ki ñuul nga nekk tubaab wala kin ki li fii bokkul tubaab la wala nit ki ñuul la dëkk bi yëpp ñun ñoo ñun ñoo nekk fii war nañu ko respecter pour mun a génne ci ci feebar bi jàngoro bi mu nekk ci dëkk bi alors première première bi mooy kii bi yëpp affaire yi yëpp ay dem football wala dem ci marché yi euh, naka la wala dem euh, doxante ci dëkk bi wala dugg def lu mu leen la non loolu jeex na wala nga dem seet sa xarit toog ak moom seen kër xam def def wala def musique ngeen nekk fu mu xamante ne ay ñett wala ay dix personnes ñoo nekk foofu activité yooyu dañu ko éviter pour ngeen bañ a ko def léegi moom pour nga génne nag activité bu xamante ne disponible na mun nga ko def mooy liggéey mun nga dem liggéey ak mun nga dem ci marché pour ndugg mun nga def mun nga dem tamit ci pharmacie pour jënde ay ay garab par exemple wala jënd ay masque wala jënde jënde kii bi voilà yooyu yëpp mun mun nga dem wala mën nga dem ci euh, ci tabakaay yo ci mbitik bi fi ñuy jaay crédit yow fi ñuy jaay cigarette mun nga dem foofu activité yoo mais restaurant yoo tabaka tabakaay ak ak seen baare yëpp di ñu di ñu tëj yëpp kenn waratul dem yëpp ñoo tëj yow si ñu la fekkee ci yoon yaa nga doxante ko nga ne ara ma dem comme italien ñu ñu ko wax ara ma dem dem dem def passage euh, passage euh, passage euh, naka la ko waxee sax ma dem doxante ci dëkk bi xam nga su ñu la jàppee. yow amoo amoo eh, feuille bi boo xamante ne mooy jox autorisation feuille bi moo mooy mooy mooy won ni que yow yaa ngi dem liggéey walla di alors si police yi arrêté la yow feuille bi nga war a won soo woonee feuille bi bii nii après ñoom dina la laaj fooy dem nga ne liggéey laa dem ban liggéey ngee def après gars yi complet ko yépp ñu def ko lii boo ñi ñi bindi sa tour ak sa sa date de naissance ak eh, ak fi nga dëkk Italie fii waxuma la Sénégal ak sa numéro numéro bunt ñu ñu bind boobu tamit kay léegi mais suñu la jàppee di yoroo yoroo ko da ngay dugg ci problème da ngay dugal sa bopp ci problème mun nga dem kaso mun na la yëndee naka sudu noonu xamante ne yow doo mën a génne sa bopp li affaire bi foofu même suñu kër sax suñu kër walla dañuy éviter ay ay daayira yu magal yooyu kii yooyu fu ñu xamante fu mu xamante ne wala ngénteel yooyu yépp la ñuy éviter wala nga éviter nit ñi eh, ay say xarit ñu ñëw eh, yëndoo sa kër loolu yépp di ñu ko éviter pour ñu ñu loolu yépp la ñuy éviter fu mu nekk ni il faut que loi bi ñu respecté ko ñun yépp parce que affaire bi fu mu nekk du du affaire italien kese ñun yépp la parce que am na ay sénégalais yu bari woo ay africain yu bari ñu ngi liggéey ci restaurant restaurant yi yëpp tëj nag léegi lu ñu mun a def ñun il faut que ñu boole euh, ñu boole ñu booloo def ñaan pour yàlla mun a génne jàngoro bi parce que sinon ay liggéey yu bari ñoo euh, ñooy du euh, ñoo ñoo ñooy dugg ci kii bi ci tolof tolof xam nga parce que dañu ñëw fii pour liggéey si ñu liggéeyul tamit fi nga dégg doo mun a fay dara léegi affaire bi du question affaire italienne rek ñun ñëpp la ma de ma wax ko ñun yëpp la ñun ñëpp ñun ñëpp ay gan ñu nekk fii parce que du yëpp italien rek la ñooy indal ñun nit ki ñu damaa dégg yeneen nit ñu wax waa ñun ay nit ki ñuul la feebar bi du dal nit ki ñuul loolu bàyyi ñu bàyyi ñu bàyyi loolu yàlla moo am dira yàlla li mu la musal rek kenn du la mun a dugal foofu à moom kenn du mun a def kenn du mun a def dara si yàlla moo ko bindee si moo ko bindee mu ne ay. ay ay tubaab yi rek la eh, eh, war a jàpp noonu lay deme si yàlla nu ne ñun rek eh, nit ki ñuul wa ak tubaab yi yëpp la war a jàpp kenn mën a def dara mais si yàlla yàlla moo yàlla musal ñu feebar bi war nañu war nañu war sant yàlla encore parce yàlla moom. mooy mooy yàlla kenn du ko kenn du ko mën a def eh, kenn du mën a dina de ay décision su ma du jël décision kenn mën a def eh, def dara xam nga ñu ñaar rek par bi mun a génn eh, war a génn maanaam na répétaat fooy bi moo ñi ñaar fooy maa su ñu la jàppee su ñu la jàppee six cent euh, six cent six cent euros soo moytu loolu almaan boobee dina la ko jox da ngay dem kaso il faut que ñu moytu ku ne fu nga nekk rek ngay moytu. joxanteel loxo tamit éviter nañ ko pour do joxante loxo wala nekk fii euh, nga bracare sa euh, sa xarit loolu yëpp gars yi éviter nañ ko voilà soo buggee soo buggee kii tamit nga soo bukkee euh, soo bukkee nettoyer sa sa kii bi nii ngee def jarula ngay jël ay sa loxo nii wala dugal sa loxo nii loolu yëpp bul sa bët bul bul ko laal ak say ay sa ak say loxo parce que loolu yëpp. éviter nañ ko bu bul dugal sa loxo yi si sa si sa gémmiñ loolu tam yëpp loolu yëpp gars yi éviter nañ ko pour ñu bañ a amaay euh, contami euh, contamination yooyu parce que soo nekkee ci yoon ci terrain ci euh, biis yi wala ci yooyu xam nga yooyu yëpp xam nga yeneen nit tam bokkuñu da ngay gis nit rek.